waaw tey dañu ñëw fii njaareem bi ñu jógee bitim réew fas yéene jublu ci jéego yu mujj yi ci joŋante bi ñu jëm ci 25 février 2024 ñu bàyyi lépp nag taxaw ñu teeroo ba pare nag ñu ne nañu dugg ci dëkk bi waxtaan ak nit ñi naam xam nañu seen jafe-jafe parce que ñu ngi fi. waaye dañu bëgg gën ñu ko tënkal ñu wax leen ci jafe-jafe yi bu ci ne lan la ñu naal pour faj ko génne téere bi nga xam ne moom la ñu duppee tabax Sénégalu ëllëg bu ci ne ñu wax la naka lañ koy defee fu ñuy jëlee xaalis bi nu ñu koy jëfandikoo ak naka lay amee njëriñ waa Sénégal loolu la ñuy def ba ñu jógee ba léegi jaar nañu Thiès jaar Louga jaar Ndar jaar maatam fu ne dem nañ waxtaan ak population waaye wéy bi benn la ñëpp doyal ci nguur gi ñëpp d'accord nañu ne senegal dafa am juróomi góom yu ko tënk benn góom bi mooy ñàkk ndóol kenn ñëpp xam nañu benn bi mooy njàng mi sooxe ñàkk jàng benn bi mooy ñàkk xëy benn bi mooy ñàkk kaaraange benn bi mooy ñàkk faju loolu mooy góom yi nga xam ne moom la senegal saafara bi ña mooy tabax sunu programme bu ci ne ñu wax la xaalis bi ñu koy jëlee fu ñu koy jëlee jàng bi ñu ne la huit mille milliards yi fii lañ ko jëlee bu dee sécurité bi ñu ne la vingt six milliards bi fii lañ ko jëlee bu dee santé bi wér-gu-yaram ñu ne la cinq mille milliards la ci juróomi at la fii lañ ko jëlee bu dee xëy bi ñu wax la naka la ñuy def ba togg suñu gaz bi ba nit ñi am ay liggéey bu dee mbëkk bi nit ñi dem ñu ne la dañ ci teg cinq mille cinq cent milliards fexe ba nit ñi dem ñu ñuy négocier visa yi pour xale yi mën a dem donc programme boobu la ñu ñëwoon pour tënk ko loolu la ñuy wax ak waa wax ñu seen i jax jaaxle fii gis nañu ne dëkku xaruñu loxo la ñu ne dañuy taxawal benn fonds office sénégalais de l'artisanat def ci ñetti téeméer ak juróom fukki milliards nga xam ne lépp financement la boo xam ne bi ci seen biir lay tourner ñu def ci wàllu mbéy mi aussi xam nañu ne dëkku mbéy la dinañu fexe ba gerte gi ñu fi béy ñu mun ko fi toggee waaye ci ginnaaw gerte gi si am na yeneen xeeti euh, mbéy yu ñu fi war a def yoo xam ne def nañ loolu yëpp moom lañ doon waxtaanee nit ñi ak jeunesse bi programme yi ñu ci am loolu moo doon suñuy tànk bu ñu fi jógee Fatick lañuy dem dem dem Kaolack yeggali defar réew mu yëpp semaine prochaine nag ñu jublu ci affaire élection yi préparer suñu congrès pour le 24 euh, décembre 2023. motal nañu parrain motal nañu caution sama at vérifié naa ko ëpp na fanweer ak juróom sama ah, samay kayit xool naa ko li ñu des daal mooy ñu déposer ko. dem ca congrès ba daal di ko formaliser ah daal di jublu ci élection. waaw mooy néewal doole bi rek commencé wul tey bi ñu defee élection yaakaar naa ne fàttaliku ngeen ko 2019 man maa superviser campagne yu élection Ousmane boobu ñu bare ci opposition bi dañu dem ci Idrissa sax man maa ko superviser boobu ak léegi du benn diggante bi nag façon bundu xatal bu ne ñu def ko ko bundu yooyu nag ah ñun mosuñu cee ànd te ba léegi dañ koy dénoncer. même bu ñu bokkul parti li ñu ko def teguwul ci yoon ak lu mu mun a def càgganu citoyen mënul layal caacaayu nguur kon nag loolu mooy loolu loolu mooy loolu nguur dafa war a tëggee tëddee jaxanaay bu ñu la joxee pouvoir da ko war a def pour nga jaarale lépp ci yoon même bu nit defee dara nga jaarale ko ci yoon noonu lañ fi defoon Karim Wade noonu lañ fi defoon Khalifa Sall booy condamné nit da nga koy jaarale ci yoon waaye boo amul droit téye ay fiche boo ko téye tooñ nga loo mënut ci def dootul saf kenn loo mënut ci def dootul kenn nit nag c'est pas parce que da ngeen bokk kii di xëccoo que yow da ngay fexe di ko yéene lu bon ñun meluñu noonu duñu politique na bu deuxième tour amee ñun dañu ne dañu am groupe parce que fii Sénégal mais nag du ñu ànd ak n'importe kii ñi ñu war a àndal lañuy àndal ci base programme bu deuxième tour amee képp koo xam ne kii moo ñu ci jiitu ci groupe boobu dinañ ko jàppale waaye du ñu jàppale nit rek parce que dafa dem deuxième tour dañuy jàppale nit parce que programme bi mu war a yóbbu Sénégal ànd nañ ci ñun loolu mooy suñu différence. ñun dañu mënuñu jàppale candidat nguur xam mënuñu jàppale candidat nguur waxuma la nguur sax am na candidat opposition ñu leen jàppale ñun parce que fi ñu jëmale réew mi <laughs> parce que ñamal nañ ñu ku la ñamal ñamalaat la Sénégal du réew moo xam ne mu ngi doog a juddu juróom benn fukki ak ñett ñëpp ñoo xam ne ñii jaar nañu ci loolu ba liggéey ci te soldé wuñu seen compte ak nguur gi mënu leen jàppale c'est pas